ah kon kàddu bu dee dañ koy jënd ñu jënd ko balaa muy yàqu. jinne bi dafa am xet quoi. yow waaw mosoo dégg Cheikh Momadou. kii Cheikh Momadou kan. maa maa teng teng teng ah moo foofu. waaw. yaakaar naa ko lu bari léegi duñ ko def. dama dama koy def kay léegi woo ko ñëw ñu filmé ko. xoolal léegi xoolal léegi woo yaay wax nii. man Anchou. yow Anchou. yëpp eh. yow maanaam lan nga yow. jinne jinne jàkkaarloo xool ma. Ah, ah, ah. xool ma. xool Guinée. yow. man naa la xool. waaw. mënu mm-hmm. ma la xool léegi daal yàlla rek. lu tax mënoo ma xool. naa depuis xale bu jigéen bi wax ak yow neen te boobu jour laa yeew boobu jour xaw ma sax. Ah, boobu ah? xam nga depuis xale bu eh, jigéen bi wax ak man. Eh, moom xam na moom mu commencé génn. moom xam na commencé ah, depuis xale bu góor jigéen bi. mos na ma woo man mii seetal sa téléphone. man mii mii mii nekk xale bu jigéen bi. waaw wax na dëgg. moom yow mii yaa bu ba guddi nag mënatul nelaw. duma nelaw. te ci xale bi jigéen boo ma téléphone. waaw bi amatul jàmm. amatul jàmm moom nag mu ni bañul génn mu ni moom bañul génn mu ni ñu teegal. waaw luñ def jox na ko moom ko gis ma def jox la ko mu ni ma kii Umar. ma ni ko waaw man ma ni ñëw ku la wax sax damay ñëw ba ah. indi li nga indi nga teg fi. <laughs> yaa ngi comprendre ma ko mu ni ma man bañu yow yaay sëriñ xale bi waaye eh, eh, xale bi il faut ma dem man du ma génn fii il faut ma dem si Ceerno Mulaay Sow ma génn foofu ma foofu mooy sama sutur mu ni moom ñëwul pour xeex moom si boppam ñëwul pour xeex waaye kii rakkam bi def ko indi pour mu faju maanaam mu ne yow yaay sëriñ xale bi loolu la wax man sëriñ Kaja ah yow maanaam yow sëriñ nga. waaw man léegi sama gën man wax naa ko man du ma sëriñ. kii day wax rek waaye. na toog rek après. ñun hmm, di dem moomu ku feebar dafa bëgg dimbali waaye moom na toog rek dinaa nit yi yow da ngay di def ñaan tuuti quoi. man ah, ah. bu ma am nit bu ñu mel si man ñaan ma ah, dama koy jox. Ah. ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla rek. Ah, nit bu ñëwee pour. waaw bu ma waxee rek lu pour ma may ko dara. nga may ko dara. man ma may ko ngir yàlla. dëgg la nga defal ko ñaan ngir yàlla. waaw ñaan ngir yàlla. man tamit tudd si dara. soo fekkee damaa bon ngir yàlla quoi ci ñaan. fan mu tane hmm? mu tane. waaw man mu tane maa ngi teel. man nag seet laa ne. léegi yow jinne hmm. jàkkaarloog man nga xool ma hmm. doo ma xool. moom ñu ko naxaar dafa amul lu ñu bindoon il faut mu sang ko ba mu pare mm. léegi pare na ah, moom xale bu jigéen bi waaw ah, am na loolu bindaloon waaye moom sangu waaw moom su ñëwee si xale jigéen bi moom day wax waxu pël mm. waaye buñ ko ñaanee bu génn dem xale jigéen bi day wax normal waxam mm. yaa ngi comprendre xale bu jigéen bi dégg na pël pël la waaye du pël fut lu muy lakk seen pël ak sunu pël du benn moom ah. pël fóot Guinée la kan Guinée bi Guinée bi Guinée bi pël la Fuuta la pël la Fuuta Guinée ok en cas pël la Fuuta Guinée an mm-hmm. Guinée bi pël la Fuuta Guinée la mais xale bu jigéen bi du pël la Fuuta mais buy wax voix pël la Fuuta mooy ñëw xale bu jigéen bi tukulóor la xale bu jigéen bi tukulóor la waaye jinne bi bu ñëwee day waxu waxu pël Guinée. waaw ah, yow maamu xale bu jigéen bi nga doon àndal. ok yow ñaata ak nga am c'est important. mu ne 106 ans la am. nee na 106 ans la am. parce que boo xoolee xale bu jigéen bi mos na moo appel vidéo. benn jour moo ngi woon ci kaw terrasse ah. après mu xool ma woo ma ne ma Thierno dama bëgg a ñëw fii ànd sama rakk ak sama papa. waaw. yow yaay rakku papaam. si mbokk. léegi nag boobu ba mu waxee ak man téléphone ba tey. Hmm. teel ko balaa muy daanal suñu caméra bu bees bi siin la jóge benn taalibe moo ñu yónnee caméra fii macha allah <laughs> pour ñu mën a filmer macha allah ñoo ngi koy nuyu di ko ñaanal. ñun nag loola tax ñu jóg. léegi moom woowoon na ma nee na ma dinaa ñëw ànd ak sama rakk ak sama papa. Hmm. léegi depuis ba mu ma woowee boobu ba tey. maanaam jinne bi ca la yeewu ci yaramam. ca la yeewu mm, mm, waaw. Mm. lu tax ma woo de. xale bi jigéen bi dafa ma sonal day seet day dugg YouTube bi seet vidéo man dama sonn. xale bu jigéen day seetaan ay vidéo. nii après ma woo yow jinne walla. moom mu ngi tuttuq daal su mu yow jinne bi yaa woo parce que keroog moom ma woo di wax di ree keroog ba ma wooyee muy wax di ree man xam naa xale bu jigéen bi dafa mu am 6 ans maa ah depuis mu amee 6 ans yaa ngi ànd ak moom waaw léegi yow xale bu jigéen lan nga ko yàqal ci àddunaam lan ak lan waxal kii doomam la. kii doomu Kaja la du doomu Kasum kii doomu Kaja la. <laughs> kii man may maamam. léegi kii ana <laughs> papam papam moom tool ka day liggéey ayni bamma ko kanko o anda haydara anani o sikkata de mm-hmm. ɗum ɗo ko komaƴi mimoɓe ne woodi kanko o anda ha hande o sikkata ko fijirde mm, an haɓaka aɗa ko tuubo aɗa ko tuubande allah a ah, ari tuubande allah ah, ah. mbimam tuubnowo allah kay wawi tuubude wuur no wulɗo sana ɗo ɗum adda men ɗo yokkal maanaam ma dimbali la sonal nga xale bu jigéen bi. Oh. loolu moo ñu yokk ki waaw xam nga mbokk jullit yi mbokku taalibe yi mbokku Facebook mbokku YouTube international xale bu maanaam du xale bi sax laa jinne bi. maam bi jinne bi ne na woo na ma c'est vrai woo na ma téléphone appel mu ne ma dina ànd ak paton ak rakkam mu ñëw yàlla def nag ñu ñëw jinne bi nee na moom moo woo. parce que dafa sonal xale bu jigéen bi ah. nee dafa bëgg génn ci xale bu jigéen bi ah, ngir yàlla xam nga ne mbokk lii lu garaaw la jinne bi pour la fuuta la boo xoolee xale bu jigéen bi xaal pulaar la ah. mais bu jinne bi di wax pulaar euh, te xale bu jigéen bi du pël la fuuta gis ngeen mbir mi dafa yéeme foofu maanaam xale bu jigéen bi buy làkk tukulóor la mais jinne bi buy làkk langue pulaar maanaam langue pël la fuuta lay lay accent pël lay indi kon gis ngeen foofu dafa yéeme léegi nag jinne bi nee na moom moo doon ànd ak naka la maamu xale bu jigéen bi ah? maanaam yow taalibe nga woon ci maamam wala. kii eh. waaw ñoom nga doon àndal. moom maamam. waaw ak yow sama maam sama maam nijaayam la. léegi nag yow ba nga doon ànd maamu ñii maamu xale bu jigéen bi ak maamu papaay xale bu jigéen bi. maanaam yow lan ngeen daan jëflante maanaam da nga leen daan dimbali ci ay seen i ñaan wala lan ah. foofu bëggul wax ah foofu moom bëggul wax foofu bëggul wax bëggul wax foofu waxal wolof mani naam waajuram dem nañu mm-hmm. waxoon léegi yow buggoo leen ci wax dara. dégg ngeen lu mu wax. nee na waajur ñii waxuñu jinne yi naka lañ daan jëflanteek jinne yi léegi ñoom jinne yi kon duñu leen xamal duñu wax ñoom naka lañ daan jëflanteek waajur yi n'est-ce pas loolu la wax waaw ok. maanaam musal nga leen ci lu bari. ɓe ko heewi anani mi rentiniɓe koko heewi soɓe jaɓi eɓe ndeno soɓe jaɓani mom tarnalu bara bala muy ñëw di jëm si na lu bare dañu bayi lu muy ñëw ci man waaw muy ñëw si yow bala ñu ñëw ci ñëw dem am nan waxul wax léegi yow sànq dafa am jinne mi aar sànq dafa am loo bëggoon wax ci moom lu mu doon lu mu waxoon léegi ma ne la may ma tuuti ma wax ak moom léegi lan nga bëggoon wax sànq c'est important moom lu mu wax moom bu mu ñëwee moom bu mu ñëwee mm-hmm. dafa ñëw mu ànd ak rakkam yaayam moo mu wax mm-hmm. diw de mu ngi di ñoon mu ngi si yoon di ñëw mm-hmm. il faut nga may ko dara bala muy egg dafa feebar waaw waaye bu mu ñëwee. moom dafa présenté moom mu ne moom dafa màggat. moom fu mu nekk léegi dafa rus. maanaam daal moom ñëwul pour xeex te dafa ñëw rek pour mu tuubal yàlla. mu génn si xale bi mu bàyyi ko. Hmm, loolu la ma ko loolu la wax li important bi loolu la wax. Hmm, eh, dafa ñëw pour pour tuub. léegi moo waral. Dakar ak Guinée Sénégal ak Mauritanie ak a hmm. lu tax mu bàyyi ko sëriñ lu tax yow jinne bi laay laay Sénégal ak Guinée dafa sori maanaam lu tax nga ne da ñëw fii ci man parce que c'est important aussi c'est important ma laaj jinne bi mu ne yàlla moo la ko may mu ne yàlla moo la ko may il faut mu ñëw yow mm. léegi na wax wol wolof mbiɗa lan nga wax lan nga lu tax yow nga nga bàyyi murtane murtane am na ay sérif am na ay sëriñ lu tax nga bàyyi murtane yow jinne bi nga ñëw Sénégal ci man Thierno Moule Sow lan moo waral loolu seede àlla mm. xale bi isolé na ko lan moo mm. waral loolu mu ni yàlla mm. mu ni yàlla ne mu ni yàlla yàlla waa léegi bëgg naa mu wax ci làmmiñam moom mm-hmm. waxal lan moo waral nga bàyyi murtane ak nu mu bëri ay sëriñ ko alla jogi gasaani anani alla jogi gasaani sa ƴetti yeesa ƴettaani fof ko alla hokkuma dégg waxal ci wolof loolu. mu ni eh, non bàyyil ma wax waaw waxal ci wolof. yàlla. <laughs> léegi yow waxal loolu. mu ni loolu yàlla moo la ko may. il faut mu ñëw si yow mu génn fii. Mm-hmm. si yow. Mm-hmm. mu des fii si yow. moom ñëwul pour xeet ñëwul dara mm. gën ngir yàlla mm. waaw ok kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gis mm. ngeen gis ngeen kam bi nag doo bëgg ngeen seet ko mu ni ñetti jinne moo nekk ci moom moo nekk ci kii ci kii ñett yu jigéen la wax ñett yu jigéen lu tax jinne yi topp ko danaa yow jinne nga xam nga ci dara ñetti jinne ɓe ko sayi sayeɓe ɓe no gona gotum aneni ayi o eɓe kaɗim ko heewi eɓe nangi haalo makko eɓe nangi fofo makko o yahata tan o jooɗotaka de mi darani ɗum min sunnu komo bonnoɗo gonnomo ñam fof ma cukalel dewel ngel yana min mi bonani nee na moom bonul xale bu jigéen bi moom moom ñetti jinne ñoo ko topp jinne ay saay-saay la ñetti jinne ñoo topp kii jinne ay la moom bonul kon mbokk yi gis ngeen nee na nee na xeexul ma man tamit nekkuma fii di xeex ak jinne rek jinne bu ñëw jinne bu ñëw ak yar ak teggin ñu dalal la teral la ne la boo ñëwee nag tamit ak i fitna nga fekk fi Thierno Moule ndax léegi-léegi laa fi jàpp benn jinne sonal ko sonal bu metti sax léegi léegi nii mu wàccu néeg bi yëpp fii mën a jinne yi nañu ko téye xoj ko ñu xoj ko sonal ko moom nag dafa ñëw ak moom nee na la yew o joɗiɗo ɗo moom nee na xeexul xuloowul ndax moom yàlla ñëw ut si fii Guinée la fee la jóge Murtane mais jinne bi ko topp Guinée la dëkk jinne bi jinne bi moo doon ànd ak seeni maam maanaam léegi mu dugg xale bi xale bi Murtane yàlla nii nii Murtane lañ jóge direct mm-hmm. ñëw dakaar kon gis ngeen mbokku julliti mbokku taalibe yi suñu borom lu ñu defal dafa rëy sànq rek maa ngi koy wax fii nee naa leen suñu borom man amiin nee yàlla yàlla guddal sama fan nee ma xool kii waaye moom il faut que mu génn mm-hmm. il faut mu génn ci xale bu jigéen il mu génn ci xale bu jigéen bi lu tax nga ne mu génn xale bu jigéen daf ko sonal wala lan. daf ko sonal tere na ko lu bare. tere na ko lu bare. tere na ko lu bare. xale bu jigéen bi léegi dafa sëy ci këram la nekk dafa ànd ak jëkkëram léegi feebar bi bu mu ko jàppee léegi dañuy wax sax moom dafa dof te doful. xale bu jigéen bi bi doful de. kii rek moo ko jàpp. doful. léegi xale bu jigéen bi dañuy wax dafa dof. doful de waaye doful mais jinne bi moo ko jàpp. léegi yow est-ce que gëm nga ne jinne moo ko jàpp. gëm nga jinne wan na ma lu bare. lan ak lan la la wan. wan na ma lu bare oh. parce que moom bu si xale jigéen bi suñ ko ñaanee na gën bi jigéen day dem xale bi jigéen bi ñu ma wax ak moom. Mm. ma ni ko looy sant si sa sa métier mu ne ma sama fii muy métti mu ne moom dafa diis parce que dafa màggat. jàppee xale bi dina mel dafa diis bu génn si moom day sonn léegi mu bàyyi doomu dem ngir yàlla ñun tamit baal nañ ko xale baal nañ ko mu ngi sa loxo waaw woote yeewu oo yeewɗum yeewɗum saydi mi wallamama ha gayna saydi kadi mi liɓa kam mo kucca e makko min mi haɓa ka mbeɗe gooda allah anani no warɓeɓena bon jine bi pëlla fuuta la jine bi guinéen la mais mourtanien la jàpp sénégalais moo koy faj mooy la xalifa général di jinne mooy ñetti Thierno Moulay Sénégal Guinée bi dina yee la xale la mu ne benn laa lu tax nga ne man benn laa du ma ñaar lu tax nga wax benn laa man du ñaar en tant que jinne man damaa xam dara noonu <laughs> yaa ma mag yow ñaata at nga am. 106 ans. 106 ans. 106 ans waaw yaa ma mag de léegi nag mag bi mu mag mag yow kan moo gën a nekk kan mooy kilifa yow biimi ko aana allokki walla ma miin biimaami yow mi haɓaako anin mi weerindira ah dégg ngeen nee man la yàlla may moo mag cent six ans moom lan la mën lu mu mën hollum mbawɗa liba homɓe mais an an an ka nayejo est ce que aɗa jogui doole moom màgget la ma ne ko que mën na am na doole nee mën na ma dimbali ma daaneel jinne yi est ce que an ala aɗa jogui doole mm-hmm. mais an 106 ans ɗum wona ɗum naya no woodi jinnaji ɓuuri 106 ans pouvoir ma ko honɗum ko honɗum mbawɗa tigui tigui ko honɗum allah hokkuma eh, ko mbawɗa ko honɗum allah rokkuma lan lala yallah may lan lala ya suñu borom may waxal wolof nga ne soo buggee léegi léegi léegi léegi ma dem nag sot maanaam su la neexee nga dem ñëwaat sot léegi ñëwaat fii yow yàlla may naa la loolu maanaam foo bëgg a dem nga dem ñëwaat. Hmm. mbokku ji mbokku jullit yi mbokku taalibe yi jinne bi nee yàlla yàlla mu ne yàlla may na ko su buggee tey tey bu buggee léegi ni dem noation ñëw tëdd loolu xam nga ne macha allah loolu mbiru suñu borom la su buggee dem noachur léegi mu dem ñëwaat xam nga jinne mooy def loolu li ma naan xef ak xeppi mën na mën nañ ne xef mu dem noachur xeppi mu ñëwaat loolu yàlla may na ko jinne ok mën nga loolu ki jinne bu jógee Mauritanie woowoon na ma ci appel vidéo jinne bi nag nee na moom moom moo woowoon ku bëgg ñëw jébbalu ci man nga ne lii lu rëy la ma man kenn la ndax li suma borom jox nee ma man kenn la sànq rek maa ngi fi wax di gërëm suñu borom di sant suñu borom suñu borom gis nga indil ma indil sànq rek maa ngi fi sant suñu borom di ko gërëm li nga ma defal jaam bu xeebu la ci jaam yi jaam bu gën a xeebu ci jaam yi li ma defal lu rëy la sant bi xamuñu fu mu commencé xamuñu fu mu jeexee gis nga jinne bi ñëw na léegi nag nañ ko laaj mu wax parce que moom nee na ñëwul xeex. dafa ñëw pour jébbalu ci man ñëw pour jébbalu pour génn mu tare lañ jóge n'est-ce kii nag papa ci moom kii rakkam la moom mu ni waaw man man man sëriñ xale bu jigéen bi moom su génnee hmm. maa war a jàngal xale si benn jigéen bi faj ko hmm. waaw mu ñëw ba si mu ñëw ci man waaw mu ñëw ci terminus bi général di jigéen dégg mu ne Euh, bu ma ko génnewee maanaam kii mooy sëriñu xale bu jigéen bi ma waaye foog mu ñëw ci man la xalif général xam ngeen ne suñu borom a ngi wane ay kéemtaanam léegi nag jinne bi nee na mën na su ko neexee dem Mauritanie léegi ñëwaat dèjà loolu mën na ko parce que du ma fi jàpp ay jinne tamit te fekk amuñu njariñ ak lan tamit nga mën ak lan tamit nga mën la ak lan. ak lan mm-hmm. mm-hmm. tame nga mën. mu ne na lay xeex da ngay xeex. mu ne moom xeexkat la. nee na boo ko def non waxal wolof. nee na du tooñ si moom du tooñ. man du tooñ de waaye ku tooñ. da ngaa mën a xeex. mu ne ku ko tooñ mu defal ko ba mu saf sàpp. ak lan man sama a xeex waaye hmm. Hmm. ma ne léegi ak lan. léegi ak dara léegi ko. maanaam yow lan moo tax nga ñëw choisir euh, Serigne Thierno man daal jàmm rek laa bëgg. yaa ko maa amiin lii maa mi. mënukomata ko nee na dafa bëgg a tuub ñëw nekk ak ndax man li may def dimbale nee dañ ma dañ dañ maa jar a jàppale parce que maa ngi moobe hanti kay mi ɗacci mini ko allah nelaɗo mum matan saboni kadi ne a yiɗi fewde kadi a أنا أدي والله أنا والله ودي اللهم يا وكثير waaw ma ne ma ne da nga ñëw di waxtaan ak sama sëriñ man ma bëgg waxtaan ak yow parce que da nga ñëw pour jàppale ma nee nga ma bëggoon waxtaan ak yow te man olof laa dégg bëggoon ñu waxtaan man ak yow ci olof. non wax olof tuuti parce que. Hmm? loolu baax na trop. nee na wax olof tuuti. ni haala eh, wolof minen yimɓe kon wolof amana important xam nga mbokk jullit yi lii lii lu garaaw la lu lu yéeme la macha allahu eh, ñoom ñoo ngi jóge ba Murtane macha allahu jinne bi nee na foog mu ñëw ba ci man mu tuub mu mun a jé mun a jébbalu man nekk ak man liggéey man dimbali ma ndax nee na man kenn laa nee na li ma yàlla defal dafa rëy nee na nag macha allah bëgg na ñëw ànd ak man pour ma dimbali ma dimbali jàmm yàlla yi nee na xale bu ci góor bi mu àndal am na ñetti jinne nee na bu ko bu ma neexee ma tuubal ko mu génn bu ma neexee aussi ma bàyyi ko mu ñu tëral ñetti jinne yi mu doog génn léegi nag waaw waaw léegi nag moom xam nga foog nu laaj parce que c'est important liggéey bi dafa dafa dafa yéeme ñoom ñoo ngi jógee ba Mauritanie léegi Guinée bi bàyyi na Mauritanie bàyyi na Guinée bàyyi na ñëpp ne ci man lay ñëw lan la gis ci man ba tax mu ne day ñëw ba ci man jébbalu ci man. loolu lañ bëgg na leeral. wa Allah jóge ko mu lu yàlla yàlla. lu Allah jóge ko gasaani lu yàlla am jeexul. mu ne lu yàlla am. loolu yàlla am jeexul waaye xam nga tamit eh, dañ fi romb ay sëriñ yu bëri ñëw choisir sëriñ Thierno Mouleye Sow ni yow moom nga bëgg a nekk maanaam ñu laaj la lan moo tax bëgg nga ñu doon nga doon nga leeral ñu rek lu tax nga bëgg nga choisir ko pour bëgg a nekk ak a oh, oh, ko mu ngi xale mu ngi doomam bi soxla na doomam bi soxla na yaay waaye leen mu o yanata oh, anani somo bonini ñam fof o oh, tiwloto oh, mi bonani de tan ko jaam gasi min mo baasi mbeɗa yiɗi bonnande ɗum gandalla o ko arsugu makko machallah mbeɗa heeɓe mi bonani kadi mi bonnanatama anani sëñ bi loolu leer nañu dafa bonul maanaam moom nee na bi xale bu jigéen bi dafa soxla yaayam day génn ci moom pour yaay ji maanaam mën a nàmpal xale bi eh, lu garaaw bul filmé xale bi ah gis nga lu yéeme la génn <laughs> la mbokk yi lu doy waar gis nii bi nii jinne bi génn na léegi. yaay <laughs> ma dégg nga. xeet ma. nee na bopp bi day metti gisoo papa ji laaj na ko lu xew ma ne suma bopp day metti jinne bi non jinne bi dafa baax de parce que nee na man soxoruma euh, xale bu jigéen bu ma soxoroon danaa ko daaneel mu yuuxu ñi ñi di kii mais fu mu nekk ni doomam daf ko soxla xaaral ma génn ci mun a nàmpal doomam waaw ma doog ñëwaat gis mu nekk nii beneen affaire la c'est grave lii nag boo xamul lu yéeme la daal léegi moom génn na essence bi gis na kii jot na doomam bi moo ngi nàmpal xale bi lu garaaw la léegi yow sëñ bi yow yaa dund ak ñoom leeral ñu tuuti fan yi li ngay dund ak ñoom ñu xam pour nit ñi mën a comprendre. man lu ma nekk si moom barewul de parce que moom dafa sëy. ah dafa fekkee ne li ngeen nekk yàggul tamit du ñàkk nga xam ci moom tuuti loo xam ne di nga ko mën a leeral. du du gis ko si seen gis ngeen ko si seen bët. ci seen bët. ci seen bët yi. gis na ko waaw xale bu jigéen bi léegi. du jënd bi génn na. Mm-hmm. moom ñu war na nekkaat na kajat. Mm-hmm. xale bu jigéen bi kajat la tudd. Mm-hmm. cinne bi xaasum bari la tudd. xaasum bari. waaw. léegi su ngeen ko. li koy amul wax mu ngi ni seen kanam. waaw euh, dëgg la sëñ bi gis nañu ko waaye tamit ndax euh, xam nga maanaam yow yaa ànd ak moom ñëw lépp loo xamante ni moom tey ñu koy tudd yow yaa ñu koy gën a xam parce yaay waajuram. ñun lu ñu waxante mm-hmm. dafa leer mm-hmm. dafa leer parce que jinne mu mm-hmm. mu ñëwee dafa présenté wu mu ne ma ni ma man yow xamoo ma man dama màggat maa ngi am cent six man bu ma nekk duggee si xale bu jigéen bi mu ngi xale mu ni mu ni ko yow kon sunu maam moo la mag mu ni ma ñoom bay seen maam yi bay leen man man man fu ma nekk ni dama rus ma ko kon kay génnal fii si teekaate nga dem ñun baal nañ la ak demal nga tuub nga dem si mun laay nga tuub foofu mu ne déedéet foofu mu ñëw mu ànd ak moom ba fii loolu tax mu yëkkati suñu tànk ba fii si moom fan ngeen jógee yéen fan maanaam fan ngeen jógee ba ñëw teekaan lañ jógee moom nokkat la nekkoon mm. dafa ñëw teekaan mm. mu dajaat jinne bi mu ni mm. xale bi yow yaay sëriñam waaye pour sama gën il faut ma dem si mun laay ma gën ma tuub ma nekk ak mun laay liggéey ak moom waaw loolu la wax loolu la ngeen di ñëw bi mhm. mu ne il faut que jigéen ñoo ko jàpp waaw ah, rakk ji problème bi luy jafe-jafe hmm. doo bu wax sax wax bi baaxul hmm. ah, jinne yi ñoo téye la wax ah. ñoo ko traité day dox rek loo jënd lay tox mu wàcc ko. moo ko jox ba demee koy nii. ñetti jinne ñoo nekk. waaw bu jigéen la. mais duñ ko daaneel daal muy muy. déedéet déedéet maa ngi ko daaneel. alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla. waaw di sant yàlla. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dégg ngeen loolu kàddu yi leer na. nee na Mauritanie lañ jóge PK. ndeysaan foofu yàgg naa dégg foofu PK noa shot. géej naa Mourtane nag mais bëri na ay taalibe yi jóge Mourtane di ñëw fii ay kilifa yi jóge Mourtane di ñëw di seet si macha allah mais kon dañuy sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naar a ngi ni yow xam nga mhm. la naar la ci kër gi kon gis ngeen ne lu yéeme ngeen woon gis ngeen macha allah lu garaaw nag lii dafa garaaw ah. jinne bi jinne bi dégg ngeen lu mu wax nee xaaral ñu pare fii ah jinne bi dégg ngeen wax nee maamu xale bu jigéen bi la doon àndal ak ak euh, papay sa maamu papay kii maanaam nijaay Umar waaw ah. maam Cheikh Umar. Cheikh Umar ban ah, Umar waaye sa pour man Cheikh Umar Fouti Taal la macha allah. Cheikh Omar bi lay kon gis ngeen ne maanaam jinne bi maamul ñii la doon àndal di liggéey ak ñoom xam naa seen taalibe la woon mais ah waaw loolu la wax léegi nag moom maam yi gannaaw waxuñu ñii dara jinne yi dañoo sàmm kóllëre ñoom it guñu xamal ñii dara ci wàllu maam yi parce que dégg nga laaj naa ko mu ne gannaaw maam ñii waxuñu ñii dara ñoom it duñu leen mën a wax dara moo tax boo amee xam-xam yor njaboot na nga leen di wax pour en cas ëllëg boo leen fa jógee boo fa jógee sa njaboot mun a jëriñoo sa xam-xam ndax tey xam-xam boobu noonu tey jinne yi bu doon maamu ñi waxoon nañ ko euh, xëy na dinañ doon mën a jéggoog jinne bu baax a baax dañu day wax ak jinne bi mais jinne bi daf ko ne yóbbu ma ci Thierno Moule Thierno Moule nag defe naa je suis unique monde entier ah. xam-xam foofu la ñuy xaar jot rek. waaw gis nga xam-xam baa ngi foofu mais bu jotee. bu jotee léegi nag ñoom seen jinne maam moom ma taamu man ñu ne dañuy jóge Mauritanie ñëw ba ci man kon gis ngeen mbokk yi sant yàlla nag jinne moom buñ koy wax ci monde bi ci aduna bi le roi c'est le seul je suis là Thierno le confirmation lii dafa confirmer jinne kon dañu sant suñu borom baax léegi man li ma ci gën a yéem sax li ma ci gën a yéem tey jinne bi nee na xaaral ma génn yaay ji nàmpal doom bi yàgg naa jàpp jinne yàgg naa lu ne mais bii tey daf maa yéem tuuti jinne bi nee na soxoruma tamit gis nga xale bi sànq mooy xale bi ngeen doon dégg muy jooy nii nii jooyatul ndax jinne bi génn na pour yaay ji nàmpal xale bi jinne bi c'est baax na loolu lu yéeme la ko xaaral ma génn yaay ji nàmpal doom bi yaay bi dafa ne dafa mel ni woon ci nelaw la ne ba jinne bi génne mu daal di jël di nàmpal xale bi lu garaaw lii nag maanaam beneen jinne bi jàngale na ko maanaam nee na ndox boo jëlee ndox ñaari ndox boole ko looy gis ndox maanaam jinne noonu la mel bu duggee ci nit doo gis jinne bi nit bi ngay gis kon jinne dafa garaaw loolu dimension la bu garaaw sax kon di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi yaay ñi nàmpal après dellu si waat